tey jii dañu def déplacement ànd ak euh, autorité administrative yi c'est-à-dire le gouverneur de la région de Dakar le préfet du département de Pikine euh, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye ak euh, ki nga xam ne moom mooy kilifay yi Sarr directeur général pour saytu wala pour xool action yi nga xam ne d'accord nañ ci ginnaaw bi agent wu direction des de l'environnement et des établissements classés Euh, jaaroon fii mais également ginnaaw bu gouverneur ak équipe am yëpp ak service yi nga xam ne ñoo concerné li xew fii euh, jaaroon fii arrêté ay action ay plan d' benn plan d' action euh, parmi plan d' action yooyu amoon na bi nga xam ne dafa concerné woon le balisage fi nga xam ne moom la ñu fekk hydrocarbures yi muy benn mélange de l' essence ak du nafta bi nga xam ne gis nañ ne Euh, dafa jóge euh, ci biir di euh, daw di ñëw ci biir plage bi mais également di jëm ci biir ci biir géej gi action yooyu moo doon d'abord baliser identifier localiser zone de passage bi parce que benn axe la boo ko seetee benn axe la parce que boo yéegee ci kaw boo ñëwee ba ci benn mosquée bu nekk fële am na benn teen bu fa amoon dangay gis teen bi fees dell ak ay hydrocarbures Euh, pompage bi mu ngi euh, nekk toujours depuis le 16 ñu ngi pomper euh, mais également bi ñu baliser ba pare ñu sécuriser ko moo tax mu am ay des agents de sécurité yoo xam ne ñu ngi fi guddi ak bëccëg pour veiller à ce que mu am sécurité ci plage bi beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a toppatoo à chaque fois bu amee lakk-lakk ñooñu tamit dañ leen prépositionné parce que on ne sait jamais pour que euh, situation yu mun a méngoo ak euh, lakk-lakk bañ bañ a fi bañ fi am ñaareel bi mooy interdire accès ci plage bi euh, pour pour les populations pour leur sécurité ñetteel bi mooy def ay prélèvement pour xool ndoxu géej bi est-ce que amul niveau de contamination prélèvement boobu prélèvement yooyu nag def nañ ko ba pare dañ ko confier woon benn stru benn structure bi nga xam ne Euh, privé la pour mu defal ñu euh, test yi euh, pour vérifier niveau de contamination ndox bi nga xam ne moom moo jàkkaarloog fi nga xam ne moom la ñu constaté écoulement bi yeneen yi plan d'action yi nga xam ne jël nañ ko mooy ŋàcc ñu ngi koy ŋàcc mooy ŋàcc déjà ndox mi mais également après bu ñu paree ñu jéem a extraire suuf si nga xam ne moom moo nekk ci wetu plage bi ñu décontaminé ko beneen mbir mi mooy SAR Euh, xamagul woon ba léegi euh, origine bi nga xam ne foofu la euh, fuite yi jóge fi mun na nekk ñaar mun na nekk fuite bu bees mun na nekk fuite bu yàgg boo xam ne ay clandestin ñoo ko occasionné waaye ñaari pipeline yi nga xam ne am SAR am na ko def na déjà test ci benn pipeline bi nga xam ne bi ñu ko changé yàggul avec la mise en eau Euh, pour vérifier étanchéité bi euh, avec une pression recommandée pour s'assurer que euh, pipe boobu amul amul fuite beneen pipe bi des normalement dans trois jours dinañ ko def la mise en eau aussi pour vérifier étanchéité bi par rapport une fois que ñu am certitude que ñaari pipe yi amuñu benn défaillance sur le plan de d'étanchéité dinañu comprendre que ni Euh, ay accumulation fuite yu yàgg yàgg yàgg yàgg la ñoom ñooy remonter en surface et euh, du point de vue euh, par rapport ak li nga xam ne moom mooy gravité bi du fait que géej bi dafa nekk suuf donc dafay jóge ci continent bi di écoulé wu di dem ci ci booru géej bi loolu nag ñu ngi jël ay ay dispositions pour fexe non seulement ci plage bi jël suuf si nga xam ne suuf bi amoon Euh, hydrocarbures yëpp ñu de contaminé ko balaa ñu koy delloo beneen bi mooy ñu fexe ba ŋàcc lépp loo xam ne muy hydrocarbure bi ñu constaté mooy bi ñu constaté ci puits bi mais également bi ñu constaté muy euh, daw di ñëw euh, ci biir plage bi léegi-léegi def nañu benn test parce que boo gasee boo tànqee bu tey di nga comprendre que ni du hydrocarbure rek dafa am hydrocarbure ak ndox hydrocarbure bi mu ngi représenté à peu près vingt à vingt cinq pour cent donc loolu yëpp dinañu continuer di ko surveiller en euh, ensemble avec euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi saar yi mais également en rapport avec les autorités administratives ak képp koo xam ne dañ la dénk euh, wàll boobu le ministère de la pêche am na fi représentant le ASMAR je pense que aussi ñëwoon nañu fi am nañu fi aussi ay représentants ñun ñëpp on travaille en équipe le maire qui aussi là à nos côtés ñun ñëpp ñu ngi joxante loxo pour liggéey allant dans le sens d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans un premier temps pour pouvoir apporter des euh, solutions yi nga xam ne moom mooy solution yu yu ñu mën a euh, pérenniser euh, ci solution yu à long terme yi yaakaar naa ni suggéré nañu je pense que Sarr aussi d'accord na ci que ñu jógee ci pipeline yi utiliser ce qu'on appelle les sea lines jël jël direction connexion entre Sarr ak le port mu ñu jaarale ko ci géej gi euh, parce que parcours boobu mooy gën a nekk parcours bu sécurisé lii des rek mooy la partie euh, atterrissement euh, foofu yaakaar naa ne du gën a jafe ci wàllu sécurisation pour que li xew ba abadan mu bañ a amati fii ci sunu réew waaye yaakaar naa ni les autorités de la Sarr ñu ngi manifester seen bonne volonté je pense que ils sont toutes les équipes sont mobilisées euh, le gouverneur également euh, ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy le préfet de Pikine et le sous-préfet de Thiaroye ñu ngi suivre mbir mi avec beaucoup d'attention la direction de l'environnement et des établissements classés aussi mu ngi suivre la question avec beaucoup d'attention on a un compte rendu journalier jour par jour li ñuy def comme action en termes de volume Euh, bi nga xam ne euh, jot nañ ko récupérer j'ai la situation depuis le 16 ba jusqu'à hier euh, une situation exhaustive de lépp loo xam ne xew na fii ci sit bi et incha allah lu ñuy topp toppatoo la pour que kenn bañ ci gaañu kenn bañ ci loru yaakaar naa ne aussi à l'endroit des populations de Thiaroye il faut que ñu bañ a inquiété wu cette situation est prise en charge bu soobee yàlla lépp lu ci war comme euh, euh, euh, solution comme matuwaay nguur gi dina ko jël pour que bu bañ am benn ngaañ-ngaañ ci population yi mu bañ a am benn ngaañ-ngaañ ci environnement yi mooy espèces yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ci biir géej bi mu nekk végétaux yi ak les poissons xeetu jën yi le les mammifères yi fa nekk donc yooyu yëpp bañ ci am ay loraange loolu moo ñu indi woon tey et je pense que Euh, bu ñu demee tey dinañu am euh, dinañu am xel bu dal euh, xel bu dal ci par rapport à la mobilisation autour de la question parce que c'est ça le plus important